jërë ngeen jëf Ousmane wàccal Duudu mbaa Duudu wàccal Sonko bu ñu moytuwul danañu ko dégg ci réew mi réew mi quotidien bind ne ñoom ñaar ñi seen ñooñ ñi doon dëmmante ci siggi coor ñoo ngay wéyal fanta sirogo ba léegi ñoo nga ca prolongation yi ku ca nekk ci ñoom def nga démb ab déclaration yàq sa morom musiba ak mbelengaan Ousmane Sonko nee na Duudu ko nee politique la xamul dara ci politique tekkiwul dara tey ak ëllëg du ma moromam Duudu ko tontu ko nee na Ousmane Sonko du nitu jàmm te dafa war a xam ne moom Ousmane Sonko man Duudu ko may bàyyam ci wàllu politique wax juree joojee Duudu ko wax Ousmane Sonko source waa xëy na nañu ko njëkk mu di dinaa waan Ousmane Sonko ne maay bàyyam l'observateur tax nañu jiital parti Pastef fi di Ousmane Sonko dal na ci Ka dal ci kaw Macky Sall dal ci kaw police bu Sénégal nee li xew keroog ci siggi coor police ndax police bi Macky Sall la ñu fi nekkal waaye du askan wi mu ne kii di Doudou Ka acteur politique la bu ndaw ci sama kanam tekkiwul dara te ba àddina bi tukki du ma sa dégg monsieur le maire ci siggi mu di ci siggi coor wala fu mu mën di doon ci Sénégal Ousmane Sonko nee na képp ku am fitu taxawati di ma attaqué na nga xam ne yaa ngi tayle sa bakkan Vox Populi nañu Ousmane Sonko mi ngi dànkaafu gaañ nee na la xew kërëg ci Ziguinchor dootu amati mbaa boog bu amaatee la muy jur nay loraange gisandoo lay doon Sud Quotidien bind ne moom Ousmane Sonko tuumal na Doudou ca la amoon ca Casamance tuumal Macky Sall it police bi ci réew mi te mu jàpp ne jéemuñu ci dara le témoigné moom it xëy ñu ko waxee noone mu di Ousmane Sonko ŋàññi na waa police ak ni ñu doxalee ca la xewoon ca bokkot bu nuppi nag dànkaafu Doudou Ka journal fa nañu ay ak i menace la Ousmane Sonko boole nee na Doudou Ka def ci boppam ne duma moroomam patarom di bàyyam ci wàllu politique Macky Sall laay moromanteel na it yëg yëmbal yóbbu leen si gicoor ba tax na man Ousmane Sonko maa ngi ñaan parents yi di wéy jur ngir ñu téye seeni doom lu ko may ku ñu ci jàpp fii ci Casamance danañu la fejar def lay morso delloo la say mbokk léegi ko nañu Ousmane Sonko wàccee na Doudou toroxal ko ba mu ne tot nee na Doudou acteur politique la bu tuuti ci sama kanam bu tekkiwul dara def politique du yore sa xaalis boo xam ne ñëpp xam ne fa ñu jugee na la ko yàlla nëbbu Le Quotidien nañu Koromantel duudu ko di ko wax ne dinaa la wan may sa bay ci politique Omar Ndoye directeur recouvrement bu DER délégation à l'entrepreneuriat rapide bokkit ci responsable yi APR di ñu wax ci biir libération ne kii di Ousmane Sonko doolee ma néew ci Ziguinchor perte de vitesse la fay dund mu dem ba xam xel ne loolee du ko jural jàmm ci Ziguinchor moo waral muy tëb a dal libération dolli ñu ci ne moom Omar Ndoye samp nam dëndëm la ca mairie bu a bokk mu ne leen mukk ndax man dama di membre fondateur APR ci Pikines 2009 ba léegi conseil municipal la ci jamono dekkal ngor nak la ko bolé ci kit sama candidature ci mairie bu Pikines Est du ñu ma bokk langue politique rek ñoo ci and ndax muy wa parti passif di ñi ci coalition yewi askan yi faré fofé bi ñu sama programme ñom ñepp anda, ànd maase ci sama candidature ndax xam nañu njariñ limu mëna jural commune bi commune bu Kër Massar Nord ministre du commerce Aminata Assom Diatta lenyuah, wax wa Grand Place moko bind ci xëtu mu ñëk yëral journal bi juroom fukki délégué de quartier ak ñeent ñeen fukki bàjjana gox ak juróom-ñeent ak i ASC ak kilifa yu fare ci société civile gi yéenekaay bi nee nañu ñoo booloo ànd investir ministre du commerce di Aminata Assome Diatta mairie bu Kër Massar conseil départemental bu Mbacké sur soi nee nañu am na mbër waa ji di Matar Diop bokk ci au conseil collectivité territoriale samp nam dëndam déclaré candidaturam ca conseil départemental ba ba wax ne fa nekk jamono ji defu fa dara lu talal moy mandargal ñetti bit yi mu duggal dembu bi Sénégal don football ak Namibie ci Afrique du Sud ngir qualification coupe du monde Qatar 2022 Sénégal mo gagné max bi ñetti bal ci mo football katu Sénégal bi di Famara Diédhiou mo duggal ñetti biti Sénégal yi ya. record nañu gaynde yi ñi jëk qualifier ci barrage yi ci déndub Afrique bi stade ne kay nañu barrage yoyé ñu wara football ngir mëna dem ci coupe du monde bay am ci Qatar ndax duñu ci daje ak Égypte wala Côte d'Ivoire mba Cameroun ak ku mu ci mënti football katu Sénégal bi ku dembu ci max ba di Famara Diédhiou l'observateur xey téye na ko ba dañuy wax ne imposé na boppam Aliou Cissé ndax ci ñaari max yi mu mujjee football dugal na ci